asalaamaaleykum monsieur le ministre Samba Sy maa ngi lay nuyu di nuyu Moustapha Ba ñu ngi lay nuyu ministre Mansour Faye ñu ngi lay nuyu ak sa àndandoor yëpp di nuyu nag DG Dem Dikk si la ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax monsieur le ministre dañ lay remercier ñun waa Bounkiling ñëw nga visiter fanké yi fa nek moy arène 4 bi travaux yaa ngi avancé bu baaxa baax parce que ci kaw yi arène 4 bi la dëkk dañuy liggéey ba di liggéey guddi kon ñu ngi la koy jaajëfal di jaajëfal nag pont Farafeñe saay bu ñu taxawee fi dañ koy jaajëfal bu baaxa baaxa baax a baax bu njëkk ba dañuy né da ngay ndéké fi añee Bounkiling mais légui da ngay julli fajar dem ndékkee Bounkiling kon ñu ngi ne jërëjëf président Macky Sall monsieur le ministre mu am benn chef religieux bu dëkk biir commune de Diakounda village de Nioroki mawlum bi passé dem naa fa mais am nañu problème yoon bu baax a baax au de Diakounda ak Nioroki da ngay mujjee def grand tour dem be Mampalaagu foofu ngay wàcce dem Nioroki mu nekk yoon bu doy waar boo xam ne au lieu de huit kilomètres diggante Diakounda ak Nioroki da ngay def grand tour presque ay dix-huit kilomètres pour jot dëkk boobu noonu te mu nekk dëkk bu religieux boo xam ne ay pèlerins yu bëri bëri bëri macha allah de Gambie Guinée Mali ñëpp ay daje foofu kon ñu ngi lay ñaan ah nga jàppale ñu si bu baax a baax a baax dans la commune de Diakounda. loolu loolu weesoo monsieur le ministre euh, bon naa su mu lu fooñi Nimzat yoon boobu tam doy na waar ba bu nawet bi jotee. du ñu am accès même bu ñu amee malade seen ambulance du mën a gën kon foofu tam bëgg nañu nga jàppale ñu ci jiraagoñ koñi arenkat bi ñooñu tam am nañu problème yoon bu baax a baax parce que yoon yooyu yëpp dafa dagg nawet bi fa que ndox day bëri casement ku nekk xam nga loolu bu loolu weesee ma ñëw jaaru ah, jaarume sooki yoon boobu tam yoon bu doy waar la mais am naa yekkin ni di nga di ci taxaw bu baax a baax a baax dans le comité de jambati jàmbat yi moom dañoo amul yoon ci dara maire bi dëmb rek mu ngi may woo bu mu dëggee yaa fi ñëw kon mu ngi lay ñaan bu baax a baax nga jàppale ko dans la commune de Diambati mu ñëw nag sama village natal muy Médina Ndiadjé Médina Ndiadjé ah jànn jool ba foofu élèves yi sax bu ñuy dem école pirogue la ñuy jël joow mun a dem jàngi euh, dans le village de Diatmen Jool ñu ngi ci doon doon kon ñu ngi bëgg pour nga jàppale ñu loolu parce que ñuy jànkoonte lu métti métti man chaque année dama fay dem gàmmu mais bu ñu mënee yéegal ci ci pirogue bi damay am problème sax kon ñu ngi bëgg nga jàppale ñu foofu bu baax a baax ñu ngi lay remercier di la jaajëfal encore ñun waa département de Bounkiling ci Medina Wandifa Medina Wandifa def nga fa lu am solo kon dañ la ko jaajëfal mais dañu ne jaarama président Macky sal moom mu ñu boole ci biir nit ñi boole ñu comme léegi Bounkiling capitale la kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax jërëjëf.